boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi lasi xalaqa al-insaana allamahu al wa nahaahu an al-xayba wan wa askuruhu ala maa awlaahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وقديمه وأمته وسلم تسليما bokk ji di ginnaaw bu ñu sante sunu boroom te dollu di ko toroxlul di seere ne amul benn buur bu dul moom kenn yow ñu jaay ñu jaamu ko ku dul moom di seere ne Seyduna Muhammad mooy ndaw li mujj yónni ca yónni ko ci mboolem xeet yépp mu nekk yërmane ci jullit yi waaye di mbugal ci yéefar yi ñu ngi julli ci moom di julli ci ay ñoñam ak i saabaam di ñaan suñu borom dolli barke ak ngërëm ak leer ci sunu yaakaar Seyxul Xadiim radiyallahu taala anhu akum njabootam ak taalibeem du ko ñaanal mbooloom jullit yëpp ñaanal ki ko xam ne moo fi nekkal yàlla bàyyi ko suñu kanam amu eggale ay yéeneem moo ki rakkam te ñu ànd di ñaanal mboolem kilifa diine yëpp yàlla dafa leen dafa leen ak tal mbokk yi sunu xutba tey bi ñu ngi koy jëmee ci làmmiñ wax wax li mu ci ni mu ay lor ak ni ko ñu baax ñi ragale woon ak nunu ko sunu borom sàmmloo xam ngeen ne danoo toll ci jamono yu wax mu mel na léegi ku la gën a ëpp wax rek perloo fit moom la moom la nit ñi def star te wax lu mata moytu la ndax moo wax moo lay dugal ci lislaam waaye moo la ciy génne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bala ngaa dugg ci islaam da nga koy wax boo loo mënoon def te nu nga koo wax du tax na doonu jullit waaye boo weddee loolu tam daa doonu yëfa kon wax am na solo moo tax lu ay làmmiñ lu mat a wattuloo ndax nga xam ne loo ci wax diis na la ko bindal te diis na la ko laagaat sunu boroom wax na ci alxaan maa yalfasu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baat boo wax am na ñaari malaaka yi nekk sa mbaggum ndeyjoor ak càmmoñ loo wax danañ ko bind te bu ëllëgee danga ko daan la ko rafetal sa wax kon nag bu kenn yaakaar ne li ngay wax rek danga koy wax mu jàll boo ko waxee bu ëllëgee gis na la ko delloo si kam ni mu xaw a ne rek nga xam ne fi ne lu waaye waxaat sax yaa ngi waxtaan ko ndax mu waar bi xew xew nga xam ne da waxee dara boo ko génnee ñu tegaatal la ko ëllëg rek suñu borom moo ca raw moom dara du rëcc sunu borom waxaat axan kala sanaktub maa yaqul wa numutluhu min al-azabi madda hmm, mu ne uy xamal ne di wax di danañ ko bind te li di wax kat dana tax bu ëllëgee ñu yokkal leen seen sa mbugal waxaat ci alxuraan ne wa taxooluuna bi afwaahikum maa laysa lakum bihi ilm yéen ngi wax ci seen gimiñ yi loo xam ne amuleen sa xam-xam nit ñi li wax léegi li ci ëpp ci njort lañ koy teg ak i defe ay amuñ ci xam-xam bu leer te yàlla nee na nag ñu ngi koy def wa taxsabunahu ayyina te ñu ngi yaakaar ne loolee lu woyof la lu doyadi la wa huwa inda llaahi asiim te fekk loolu ngay def di ca wax te amoo ci xam-xam bu leer jële woo ku wér lu rëy la ci suñu borom boo ko woyofalee sama kon kuy wax ci mbir da ko war a gëstu leerlu ko ba xam ci lu wér jële ko foog koo nettali waaye jot rek di wax kooku bakaar bay moo ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wax na ne nit dana wax benn baat te baat ba moom leerlu ko woon tax mu tabbal ko ci sawara sa gën xóot soo xam ne dana toll ne penkook sew ni penkook sew sore benn baat boo xam ne wax nga ko te leerlu woo ko dana tax nit dugg ci sawara su xóoti noonu yasallu biha fi naari abxada mima bayna al masraq wal maxraj am beneen hadiis boo xam ne moom daa wax ne daa wax ne nit dana wax benn baat ca jàppane ay niw ca li mu wax du dara mu dugal ko ci sawara su xóotile du xaay ju juróom-ñaar fukki at la yara biha basan yaxwa biha saqiina xarifan fi naar da nga wax benn baat boo xam ne mi koy xadaa woyof lool dafa nga ne lii mu ayut tax mu yóbbu la ci sawara sa gën a xóotaay boo xam ne dana dem juróom joxe juróom-ñaar fukki at kon wax mën nay bàyyi xel am na ku ma sa ñëw ci yonent salaa na ko daa bëgg nga tegtal ma lu muy tabal àjjana luy tax ma tabbi àjjana yonent bi ne ko génne làmmi mi jàpp ci ne ko lii téyel sa làmmi bi boo téyel sa làmmi rek dugg àjjana daan la yomb mu baam waat ko daa moom mu woyof mu tax mu laajaat ko daa nga teg sa ma mu dina mun na ko làmmiñ yooyu ba mu ñetti yoon kon téye soo làmmiñ bokk na ca li taxaate daan na ko daan na ko zaxalat ka ummu ka tuskare na la ndax xamoo ne ñi tàbbi sawara ñi ci ëpp ñi këpp ci sawara teg seen jëli ak seen bakkan bi ci sawara li ci ëpp wax moo leen ko teg seen seen ngóobeetu làmmiñ moo leen teg loola li nga bay fii ciy wax ba àllaaxira dana la góob danga ci góobee loo xam ne tax ñu doo doo yam ci toog te dem sawara waaye dana daa yem ci biir sawara nga këpp ci biir te ki sa bakkan bi ak sa xakkaan bi ci biir sawara si kon wax lu mat a moytu la yonent bi sallallahu alayhi waxaat na ne ci gën a metti ak mbugal yoomal xiyaam ñi ñi gën a metti mbugal ak mbugal yoomal xiyaam ñett lan borom xam-xam boo xam ne xam-xamam ba jëriñoowu ko mooy jëmu ci yàlla tegu ci nit ñi yoonu yàlla kooku mbugal gu dana am mbugal gu met ëllëg ak kuy bari wax ci caaxaan moom itam mbugal gu met leem ëllëg waaye ak kuy dog sa ñaari waajur kon ñett yu matam mooy turam ku am xam-xam boo xam ne jëriñuwul xam-xamam waaye ku bari wax ci caaxaan ak kuy dog sa ñaari waajur ñoo ñu ñoo gën a metti mbugal ëllëg yowmal xiyaam yi yonent bi sallallahu waxaat na njuumte bakkaar yi ëpp ci doomu aadama mi ngi ko jógee ci làmmiñam kon moo tax mu ne bul baril wax ci lu tudd yàlla sa làmmiñ daal ci wax dee ci tudd yàlla ndax bari wax wax joo na ne jëmut tudd yàlla de li muy waral mooy day war a day xol bu wow te ki gën a nit ñi ci ki ki gën a sori yàlla ci nit ñi mooy ko xam ne sab xol daa wow ku sab xol wow xamal ne sori nga yàlla te wax yu bari ci doo tudd yàlla jàngoo alxuraan loolu day waral xol bu wow abu bakar radiallahu anhu danaa jekk-jekk téye ci aw làmmiñam ne ko yow de fu fu ma dugg yaa ma fa dugal day téye làmmiñ ne fu ma dugg yaa ma dugal Seydina Asan radiyallahu anhu moom itam dara day wax ne làmmiñ mooy guurub yaram wi saa bu dee tooñ rek cër yëpp tooñ waaye bu fegoo cër yëpp fegoo xam làmmiñ boo ko téyee ba doo ci tooñ daal di jub say cër yëpp dañuy jub waaye koo gis muy tooñ nit ci wax xamal ne cër yi cër yi def na ngay na ngay tooñ kon làmmiñ mooy guurub yaram wi bu jubee yaram wi jub waaye bu dëggee nag yaram wi dëpp cër yëpp dëng ibnu abbas radiallahu anhuma dafa daa jàpp aw làmmiñam moom moom di wax ni ko way xaka xul xeeran taxnam ay tuskare ñeel na yow sama sama làmmiñ wi del wax lu baax boo ko defee di da nga gañ da nga bu bëree bëri baa nga noppi del wax lu baax baa nga noppi xan in taslam del wax lu baax di cee jëlee lu baax yu bu bari baa nga noppi soxlaa mi boo ko defee te mucc boo mënta wax lu baax téye soxlaa mi boo ko defee da nga mucc wa illaa faxlam anaka satandam boo waxul lu baax nag nëppoo di wax safaan ba xamal ne da nga rëcc bu ëllëgee loolu la Ibnu Abbas daa wax Ibnu Mas'ud tam dafa daa gën ci yàlla ne amul lu nekk ci suuf lu du gën a aayoo ñu tëj ko kaso ci aw làmmiñ li suuf li diis ci àdduna sëpp làmmiñ moo ci gën a yayoo tëj ba du génn ndax li muy yàq daa bari suñu sëriñ Seexul Xadim wax boo demee ci Fatul Mannaan ci jawaabu Abdurahmaan mi wax ne maa leen dégg tënk ngeen ragal yàlla te téye seenu làmmiñ ndax xam leen ne aw làmmiñ kat mooy noon bi yées ci noon yi waaye mooy xarit bi gën ci xarit yi boo ca dee def lu baax moo gën ci xarit yi waaye boo ca dee def suxaan ba nag mooy noonu bi yées moo tax sëñ Tuubaa ne lisaanu ko asadu ko gay làmmiñ daal mooy sa gaynde gaynde moom boo ko yeewee na jaw boo ko bàyyee mu wëndeelu mu lekk la làmmiñ boo ko bàyyee mu wëndeelu rek lu mu wax ko dana la dugal foofu génn boo ko tëjee nag xamal ne da nga mucc ci aw ayam moo gaynde yam rek gaynde wu ci kër moom yeew rek waaye bis boo ko bàyyee muy wëndeelu sa bakkan ci fortunel nag sëñ Tuubaa ñett libaat ne Omar radiyallahu daa am waxamaane woo ko romb benn bis mu ne ko eh yow waxamaane mi xamal de buñ la segalee ñett yëf de xamal ne ay moom ay yëpp sori la boo fegee sa sa biir saw lam yi laxa lax ba doo ci wax lu ñaaw wa xab-xabika fekk sa biir ba doo ci dugal lu lu dëgënul wa sab-sabak sa awra nga fexe ba doo ko dugal fu fu ko léwut ñett yooyu boo fexee ba saw làmmiñ sa biir sa awra du dugg fu dëgënut xamal ne aw ay moom taxalikoo naa yow sëriñ ne yokku naa ci nag ci hadiis boo xam ne waxtaan boo xam ne suyooti yi moo ko wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa am nga dénk ma yonent bi ne ko ittaqillaha wamsik yàlla ci sa salaam bi rek waaye ja xeeb loolu ko ne ko nga dénk mu ko te ragalal yàlla ci téye salaam yi mu mu nga dénk mu ko ittaqillaha wamsik lisaanaka ragalal yàlla téye kon boo ragal yàlla téye sa salaam yi mel na ne li soxla ci diine lépp am na ko sëriñ bi teg ci loolu nag li muy tegtale am na hadis boo xam ne dafa wax ne man samata najaa képp koo xam ne noppi nga téye soo làmmiñ xamal ne mucc nga adduna mucc àllaxa maxnaahu mooy man waasaba ala sumti naja min al fitani wa min wuquuhi al afaati koo xam ne tax soo nga noppi doo duggul si doo wax lu farata xamal ne mucc nga ci fitna yi adduna gàkk yi nekk ci na yëpp waaye coono itam mucc nga ci man dama wax na ne ab jaam saa bu xëyee cër ya dañuy tawat làmm yi sa loxo yeeg tànk yeeg ba jëpp ko danay tawat ci làmm yi naan ko ittaxillaa fii naa ay waaye làmm yi yàlla ci ñun ndax yow kat jubee ñu jub waaye boo jengee itam ñu jeng kon cër yëpp dañuy muus muus làmmiñ bu saa xëyee téye saw làmmiñ sëñ Tuubaa wax na ni moo gën julli bu bari ak wor yu bari di mën a julli foo toll ak di woor ba noppi sa làmmiñ yi nekk ci lu sa yoon néwut ak di wax lu wax nit ñi lu ñaaw xamal ne téye woon sa làmmiñ moo gën ngay julli gu bari ak woor woor gu bari sëriñ bi waxaat ne bokk na ci gàkk-gàkki làmmiñ ak ñàkk a téye làmmiñ yi muy yàq muy yàq mooy yusidu diin kuy kuy wax wax ju bari moom amoo diine sa diine day yàqu waa wa yuxasil xalba sëñ bi nee na day woo ab xol wa yuxallilu ar risq ku bari wax wërsëgam day wàññi ko ba tax na am na hadis bu wax ne isa raayata wax nan fii diinika aw xasaawatan fii xalbika aw xirmaanan fii riska faalam bi annaka takallamta bimaa laa yahniika saa boo jékki-jékkee xool sa xol bi mel ni daa day wow amatoo yërmande aw wala sa wërsëg di wàññi ko wala sa diina di dellu ginnaaw xamal na yaa ngi wax wax ju amul njariñ kon wax ju amul njariñ day taxa diine ju woyof waaye day woolu xol waaye day xañe wërsëg sëriñ moo tax am waykat bi wane fa kullama xasadahu linsaanu yajiduhu yowmal jasal insaanu lam lamiñ lu mu góob rek bu boo liggéey moom lay fekk loo bay fii ci solam yi boo liggéey booy góob moom lan lay fay bu dee lu baax nga fekk ko bu dee sawaan ba noonu sëriñ bi waxaat ne di lay dimbali nag ba nga mën a téye soo làmmiñ ba doo wax lu wër doo ko def ñett la sax xoo bi sikkil xaayim di tudd yàlla foo toll di jàngaar xuraan loolu dana tax ngay wax lu njariñ wal xalwati xanil xaq di wéet lu bari booy nekk ci garam pal yi garam palaas yi ak mbooloo mu bari dana tax wax wax loo wut waaye boo dee wéet lu bari dana tax nga mucc ci wax qillatul mat maxi sa xeewum téef rek da koy néewal ñett yooyu dana bi nee na nga salaam yi nga nga nga tënk ko ba du dugg ci lu mu war sa nekk sëriñ bi waxaat ne am na ñett yoo xam ne barab bu nekk yet yiw mu dana fa jóge ñett ñett yoo xam ne fu mu nekk rek xam ne yërmande suñu borom jóge na fa moom sikkaru dunya jataay boo xam ne boo xoolee adduna képp lañ fay waxtaane foofu mooy yërmande suñu borom nekk fa war dax ko ba rek boo xam ne dañ fay toog di waxtaan di ree xaqataay rek xamal ne barab booba yërmande suñu borom niwu fa wala waxi xatu fi naas yi barab boo xam ne jëw nit ñi ak xas nit ñi ak waxtaane mbir nit ñi képp lañ fay def foofu boo demee xamal ne yërmande suñu borom nekk fa looloo tax sëñ bi wax ne nit la tub min xiibatin wa kasibi wa min namimatin bi la tasasubi dee tub ci yàlla ci jëw ndax lan mi ñett yi ne bakkar mooy jëw jëw woyof na ci nit ñi lool te ngay gis fanweeri njaaloo moo tolloog jëw jëw nag mooy wax nit loo xam ne boo ko déggoon du ko neex donte moom la nga wax dëgg la ca moom waaye boo ko déggoon dana ko naqari loolu mooy jëw te loolu woyof na te fi ne xamuñ ne moo fanweeri njaaloo ñoo tolloo kon loolu ci bàkkaar bàkkaar wax la indi rambaaj moom it làmmiñ moo koy indi wa mooy nga jaxase ne ni jël xabaar fii yóbbu ko fee ca jublu ca yàq may waxtaan mbir nga dégg ko dem ca kamay waxtaan dem na ko si sa ndiw sànga may laa jël waxtaan wi rek koo xam ne day tax suñu diggante yàq kooku tamit yonent bi sallallahu alayhi wax na du tàbbi àjjana mukk ab rambaaj te loolu itam bari na wakkati fen moom itam lam làmmiñ moo koy indi fen mooy nga wax lu amul moom wax loo xam ne jële woo ko fenn gisoo ko déggoo ko so yaa ko sos rek kon ñett yooyu bokk na ci bakkaar yi nga xam ne làmmiñ moo koy indi jëw fen rambaaj waaye ak seer ak neen sam ca la bokk wara ni ne salim lisaanaka min alxabihi fi kulli sayin taxsha bi rubuuxi na nga fexe ba saw làmmiñ mucc ci yu bon yëpp lépp la boo ko defee da nga am bénéfice bu bëree bëri adin li wajhillaahi xawlal xayri wa bi lisaani laazimi la dayri na nga saxal wax lu baax foo toll waaye salaam yi fexal bu ci génn lor mukk taajil ilaaha bi kitaab wa sikri wa tanimi jawaanib xitaab mu ne na ngay def tudd yàlla jàng alxuraan muy sa mbaxana ak ak foo toll daal ne jàng alxuraan di sikkar boo ko defee salam yi du dugg ci lu ko yedd mukk sëñ bi waxaat ne maa ngi leen di dénk ngeen wattu suñu làmmiñ te di ko takk te di ko jëng fu ngeen toll ndax làmmiñ kenn moo gën a mën a màmm ci cër yi cër yëpp làmmiñ ci tax a màmm waaye ji moo gën a mën a teew ci ci cër yi waaye moo ëpp lu muy yàq kon nag nañuy takk làmmiñ yi di ko yeew bu dëgër di ko jëng balaa génn dara ndax ak noonu ak noonoo itam moo ko gën a mën sëriñ bi nee na nañuy tënk yooyu ñu xam ne nit fii waxagoo yaa moom sa làmmiñ saa boo waxee nag làmmiñ wi moo la moom fa inna al insana qabla an yatakallam yamliku kalaamuhu wa isa takallam malikuhu kalaamuhu nit bu waxagut moom bopp ne waaye boo xasee wax nag wolof day wax ne góor ca wax ja kon nag mbokk yi neen bàyyi xel bu baax ci kàddu yi ak la ak wax ji ca xam ne bari wax amul njariñ waaye wax xam li ngay wax moo am njariñ kii xam li ñuy wax bu waxee dana ci jariñu ñi koy déglu jariñu si waaye kii bari wax nag mën naa wax lu am njariñ sax waaye kenn doo cee jaariñu ndax ndax wax ju bari ja kon nag nañuy mànne gaw nañuy mànnaxee wax ji bu baax a baax te di ko xalaat bu baax a baax yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yàlla ne ne yéen gëm ñu gëm yàlla ragal leen yàlla tey wax wax ju jub bu ngeen ko defee rek yuslih lakum ahmalakum wa yaxfir lakum sunubakum bu ngeen dee wax wax ju jub ju baax sunu borom dana yëwén la seen bëri dana ko yëwénal waaye dana leen jégal seen bakkaar man yuti llaaha wa rasulahu faqad faaza fawzan aziman astaghfirullaha li wa lakum wa li amin ya rabbal alamin boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo